بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu boroom nirlewu ko kenn noo ngi julli di sëlmal ci sunu yonente muhammad salawatu rabbi wa salaamuhu alayhi di ñaan sunu borom mu dëkkee dotti wa amim xéewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam di waxtaane saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woowale góor ak woowale jigéen nga xam ni àq la ci képp ku gëm yàlla mu xam leen àq la ci képp ku gëm yàlla mu bëgg leen mbokk yi ab saxaaba de wala saxaaba ya doo fekk ku leen bëgg mukk lu dul ku gëm yàlla la doo fekk ku du leen bañ mukk lu dul ab naafiq la wala bi yéefér la la thalitha lahuma amul ñetteel saa boo fekkee ku bëgg saxaaba ya insha allahu seedeel ko ngëm yàlla saa boo gisee ku bañ saxaaba ya seedeel ko ak naafiq wala kufr benn ci ñaar yooyu li ko waral mooy saxaaba ya ridwanullahi alayhim bëgg leen mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla ni mu xoolee waa kaw suuf gis ni xoolu muhammad moo ci gën a sell gën caa set borom bi tànn ko def ko mu jëntalu yonent noonu la tànnee xolu xeet wi gis ñi xoli saxaaba yi ci gën a set gën cee sell mu def leen àndandoori yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñee nga xam ni dañoo war a xam seen dayoo ñooñee nga xam ni dañoo war a jàng seen dund ñooñee nga xam ni dañ leen a war a bëgg ci suñuy xol wallahi mbokk yi li ñuy dund tey ci ay xeeti bànneex li metti woon ci diine yàlla ji yépp ñoom yenu nañ ko seen deret lañ doon roosee diine yàlla ji xoolal mboolem xare yi nga xam tàmbalee ko ca badar dem uhud xandaq xaybar ahzab xunayn muraysia ajnadin ak yi am ca gannaaw yonent bi yu mel ni yarmuuk yu mel ni qadisiya yu mel ni xeex yu bari yoo xam ni la ca tuuru ci ay deret yoo xam ni ñii ay saxaaba lañ ñii ay taabiuun lañ alaafun mu allafa ay junni junni junni nit la mbokk yi ay junni junni junni nit ay junni laa wax ngay wàññi benn junni ñaari junni ñetti junni ba romb fukki junni da nga romb fukki junni te dama ko waxee noonu rek waaye ëpp na ko ci ñoo xam ne ñi ci ëpp ay saxaaba lañ ña ca des ay taabiuun lañ loolu li mu lay wan mooy ñoom seen alal seen deret seeni pexe seeni man-man lépp dañoo pare woon pour joxe ko sacrifice ngir diine yàlla ji jëm ca kanam ñii mbokk yi tey jii bu fekkee dem nga ba diine yàlla ji wasaare wa fi mashariqil ardi wa magharibiha ci seen loxo la ko suñu borom jaarale foo dem ci goxi àddina bi nag da ngay gis ñu suulu fa lu waral loolu ngir dox di wasaare diina yàlla ji ak dox di jihaad fi sabilillah gis ngeen ay barab yu bari ci àddina bi yoo xam ni tudd nañ fa ay saxaaba yu fa suulu di barab yu sore sore sori te yaatu gis ngeen jamono yi passé dars bi ma leen fi doon wax ci kooku nga xam ne ay boromi xam-xam ñu ngi naan dañ koo gis sulli ko mu feeñ ci siri te muy lu wér loo xam ni ku topp siira da nga gis ni effectivement saxaaba boobu siir siri la faatoo woon kon xoolal séri ak madina ni ñu soriantoo kon lam lay wan mooy saxaaba yu doxoon nañ amuloon ay terrain amuloon ay avion amuloon ay jumtukaay yu gaaw waaye ñoom wasaare diina yàlla ji jaral na leen ñàkk seen bakkan moo tax yàlla gërëm leen radiyallahu anhum wa radu an tey ñu ngi kenn ca gaa yooyu nga xam ni dañoo sacrifié woon seen bakkan ngir am ngërëmal sunu boroom muy Xaalid ibni Saïd ibni al Aas Xaalid ibni Saïd ibni al Aas kii lañ wax ni moom moo njëkk a bind bismillahi arrahmani arrahim baat boobu moo ko njëkk a bind te loolu doomam bu jigéen moo ko nettali te it borom xam-xam yi siire yi wéral nañ ko ku mel ni ibnu xajar ca la bokk ku mel ni ibnu kathir ca la bokk ak ñeneen ak ñeneen ci ñi ko wéral ni moom moo njëkk a bind bismillahi rahmani rahim xaalid ibni said ibni al aas kiimtaanu yàlla la woon ci góorgóorlu ba bi mu faatoo ak faatoom dafa tuubal nit ab yéefér maanaam waa ji ko rey ak faatoom moo ko tuubal ndax dafa gis ak kéemtaanu yàlla ci faatoom bi mu dugg see ci lislaam mu laajte kii ma nga xam ni maa ko rey kan la ñu ni ko kookoy Xaalid ibni Saïd ibni al-Aas mu waxee benn kéemaanu yàlla bu rëy boo xam ne jour ba mu ko reyee ca la ko gisee te fekk boobu tuuba gu dugg ci lislaam kookoy Xaalid ibni Saïd ibni al-Aas ibni Umayyata ibni Abdi Shams ibni Abd Ibnaaf ibni Qusay nga xam ni roofaloon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaaw gaaw ci ay maam ci kan fan la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Xaalid ibni Saïd ibni al-Aas ibni Umayya ibni Abdi Shams ibni Abdi Manaaf ibni Qusay fan la dajeeg yonent sallam Abdi Manaaf lañ njëkk a daje ci Abdi Manaaf lañ daje ci Abdu Manaaf foofa la roofaloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay maam Xaalid ibni Saïd ibni Laas kenn la woon ci kéemtaani sunu boroom yi waaye ci ñi njëkk a tuub dugg ci lislaam la doom bu jigéen nee na sama baay mooy cinquième personnalité ci lislaam te wax na dëgg doomam bu jigéen nee na baayam mooy juróomeelu nit bu tuub dugg ci lislaam maanaam juróomeelu nit boo limee Khadija lim Aboubacar ñoom lim ñi nga xamante ni ñoo njëkk a tàbbi ci lislaam ba nga am ñeenti nit Xaalid ibni Saïd mooy xaamisa xamsatin daxalu fi lislaam juróomeelu nit yi nga xam dugg nañ ci lislaam xam ngeen mbokk yi kon kii dugg na ca dugg gu teel ga lislaam amagul benn nit ci àddina bi lu dul ñeent moom mu ñëw juróomeel leen loolu bokk na ci succès yi gën a rëy yi nga xam dañ koy nawee saxaaba yi mbokk yi day ndeke yàlla ba léegi ni mu doon defee ay kéemaanam mi ngi koy defee kéemtaanam ba léegi yàlla nee na yuxriju alxayi min almayit wa yuxriju almayita min alxayi suñ borom mooy fekk lu dee mu génnee ca luy dund mu fekk luy dund mu génnee ca lu dee wa kadalika yuxyi al arda baada mawtiha loolu lan laa ci jublu mooy yàlla fekk waa ji nga xamante ni mooy Saïd ibn al Aas di ab yéefér bu bon bu bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ni alalam ak dooleem ak xalaatam ak ay pexeem moom la doon dajale di xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ci biir këram doom ju mel ni juddoof moo tax ñi nga xam ne ay duwaat lañ léeg-léeg ñu dox ba gis lu mel nii te lii may wax seetlu leen ko dëkk boo dem rek seetlu ko li ëpp ci dëkk boo dem nga seetlu góor ga fa gën a xeex sunna wala jigéen ja fa gën a seex xeex sunna boo seetloo doomamay dugg ci yëf yi mbaab sëtam mbaa lu ko jege lii moom xëy na ku ko seetluwul rek da nga koo seetlu wala doom daa yi waaye doaat yi seetlu nañ ko ba tey ci suba mi ngi am ñi gën a noonu lislaam ak sunna ñoom la yàlla yi tàggat seeni njaboot yaakaar naa xissatu firawna ak soxnaam soriwul dara xissatu firawna mu réew mi ak soxnaam su baax si defe naa soriwut kenn kon yàlla subhanahu wa taala mooy defee noonu saïd ibn al aas ci kéefar la dund ci kéefar la dee waaye yàlla génne ci moom waaju kéemtaane jii di xaalid doomi saïd doomi aas waaye mbokk yi bokk na ci jàng dund saxaaba yi li mu nuy jariñ mooy xool ñii yan genre nit lañu woon tey ñu bari ci ñun tey ñu bari ci ñun boo seetloo askan yin bokk amuñu ay moyen loola neexu la nat waaye waajoo xam ni baayam dafa yor ba giijal baayam dafa yor ba giijal wala yaayam yor ba giijal wala mu am ay propre moyen ni boppam ni ko fa bàcc dëgmal yàlla mbokk yi lii foo ko gis xamal ni waa ji ku baax la mi ngi am nag ba tey waaye téeméer boo wàññi benn ngay gis insha allah xawma li ma wax ndax leer na wala déet sa bàyyi yor ba giijal nga xam ne loo yootu jot ko sa yaay yor ba giijal loo yootu jot ko wala nga am say moyen ni bopp loo yootu jot ko nga mën a jël loolu lépp teg ko ci suuf dëgmal yàlla akub yonenteem maanaam dafa mel ni da ngaa avancé woon nga nangoo arriéral sa bopp bàyyi say intérêt yi bopp mbokk yi lii lii yombul mi ngi am nag mi ngi am ba tey man gis naa ko man gis naa loolu waxuma dégg naa ko de gis naa ko bu dee ci côté góor gis naa ko bu dee ci côté jigéen gis naa ko bu dee misaalam mag gis naa ko bu dee misaalam gone gis naa ko waxuma dégg naa ko de yépp gis naa ko laa wax koo xam ni wóor na la ni tey bu fekkonte ni àddina rekk ko yitteel yàlla may na ay famem àddina kii yàlla da koy may baayam kee yàlla may ko yaayam kii moom yàlla may ko ko moom mu xam ni lii du yoon wu dëkkmal ajana mu wan ko gannaaw delloo gannaaw boppam di dund ak tumuranke goo xam ni su ko neexoon tey tey tey tey tey mu daj li may wax bëgg naa ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yi lu am solo la lii mooy fawaid yi yiñ mën a jëlee ci dars yi tey di nga gis ci suñu biir koo xam ni bu fekkoonte ni àddina rekk ku yitteel ah bu bawoon sunna lee moom àddina waaye xam na loola ba noppi mu xam ni loola jëmul kër mu wan ko gannaaw bàyyi ay moyen ni boppam ay moyen démb démb démb démb rek maa ngi déglu wenn waxtaan woo xam ne benn borom xam-xam ci borom xam-xam yi ne ci réew mi moo ko def bokk na ci lu am solo li mu wax defe naa ab ba mu joxe sori na lool ndax defe naa soixante-dix-huit wala lu ko jege ca la lim ni ca la ko yàlla baaxi sunna jamono bi mu ko yoon sunna ne na maa ngi yore sama passeport la ma nekkoon di ma teral may tukkee ka ñëw di ca tedd ma nangu koo bàyyi ngir sunna kon yëf yi du tey loolu lu jafe la mbokk yi nee na jamono bi muy gis sunna ci mission la ko fekk mu bàyyi mission booba mu doon dox mission boobu ca lam doon nekk mu dul sunna mu di ko teral nee na mu ni balaa dellu si fii dafa jaar màkka aj ba noppi wéral tuubam digganteem ak boromam ci ngoy sunna loolu loolu yàgg na de mbokk yi nee na ba tey maa ngi ci sunna si ma nekk te maa ngi ñaan yàlla bu ma yàlla delloo ca la ma nekkoon kooku de gëm naa ni kii kooku doon wax waxtaan wi xam naa ko donte miinu ma ko lool waaye gëm naa ni bàyyi na ay intérêt ñëw ci lislaam kenn ngi mbokk yi koo xam ne ñun nan ci niit muy Xaalid ibni Saïd ibni al-Aas waxuma la baayam ni mu amee woon alal waxuma loolu de waaye baayam ci boppam moo doon wax nit ñi def mooy kilifa ga defe naa bu ngeen fàttali ko ci dars yi passé jox naa leen ay misaal nee naa leen am na ñoo xamante ni niñ nekkee kilifa ah buñ nee waa dëkk bi bu ngeen jullee timis ngeen tëdd ñëppay tëdd loolu nag boo ñëwee boo ko waxee ko nekk Dakar da koy jaaxal waaye ñun ñu fare kaw ga xam nañ loolu am na ñoo xam ne boo demee kaw ga ni leen yàlla maye kilifteef dama ne buñ ñëwoon eh yéen waa dëkk bi tey ku reer ku jul timis rek na nga dem tëdd ñëppay tëddi laax ndax niñ déggalee ko kilifa googu bàyyam noonu la meloon ci màkk nekk kilifa nekk njiit nekk borom dëkk am alal ami jur am ay moyens Saïd ibn al-Aas nii la meloon yàlla def mu jur doom ju ñu tuddee Xaalid ibn Saïd Xaalid lii mu gis lépp feesul bëtam waaye mu nangu koo wan gannaaw nangu koo wan gannaaw ngir topp yàlla akub yonenteem allahu akbar mbokk yi mu ndax jigéen ñi ñoo ngi fàttaliku qissatu Asiya Firawna ban buur nga naan ma moo ko ëppalee alal firawna paleem ba xoolal dafa dafa dafa xamadi woon ñàkku bi yara ñàkku bi yara ñàkku bi yara ba nanguwu la dëkk sax fi nit ñi dëkk gis ngeen mu naan ah am am wa hadihi al anhaaru tajri min tahti afala tubsirun ñàkku bi yar gi yegg na ma yaa haamaan ibni lii sarxan damaa bëgg nga tabaxal ma benn château laalli ablughu al asbab ma yërndu fii asbab as-samawati fa attalilaahi Moussa damaa bëgg nga tabaxal ma château ma yéeg xool ba xam ki ki Moussa naan mooy yàlla ma nga ca asamaan saam déet allahu akbar kii beewoon na lool mbokk yi loolu la yàlla wax izhab ila firawna innahu taxa kii mi ngi bëgg a ëppi loxo de Moussa idhab ila firawn kaay ma yabal la ci firawna innahu taxa kii fi ne mi ngi ëppi loxo kat dafa bew de gis nga kooku gis nga jabari buur jamono jooja moo nekkoon moo doon tudd première dame subhaana rabbina al aala gis nga ñooñu li ñu doon am ci or jamono jooju nekkul comme ni prés jabari président di mel première dame ni mu déedéet jamono ji ñoom or la ñuy am gis nga ñooñu soxna yooyu suñu ubbee seeni magasin or laa wax mën nañoo jënd ndakaaru maa la ko wax ndakaaru waxuma la buur ba de soxna sa laa wax defe naa waxuma la sax bu yàgg ba soxna Omar ibn Abdul Aziz rek muy Fatima bi muy doog a sëy si gis nga soxna borom xam-xam yi ku mel ni Ibn Kathir ñoom gis nga soxna Omar ibn Abdul Aziz bi muy doog a sëy si li mu ëndaale ci ay or mën naa tabax ab cité ab cité laa wax fekk benn àll ci site ab site nga jënd ko mu nekk 300 nangam parcelle nga jënd ko tabax ko yëpp ba mu yegg li soxna si amoon ci or toll na noonu nga ne ma fu mu ko jëlee ma ne la baayam amirul muminin la ñaari frère am amirul muminin nañ la maamam amirul muminin jëkkëram amirul muminin moom li daje ci moom ibni kathir nee na kii dafa kiimaane mu ne moom la benn waykat di wax na naa yow de li nga daje daa kiimaane sa baay amirul muminin sa maam amirul muminin sa jëkkër amirul muminin say frère amirul muminin koo xam ni sa baay amir la woon sa jëkkër amir la say frère yow loo looy soxla ba di ko ñàkk lan mi ngi mel ni rek kuñ ñi tey jii sa baay ministre la sa yaay ministre la sa bàppa ministre la yow sa jëkkër yow foo ñàkkee yow waaye bi mu sëy see Omar ibn Abdul Aziz ni ko man day ku ma xam bi may nekk jeune xam na ni ku amoon ay moyen la Omar ibn Abdul Aziz ku rafetoon la bi muy nekk xale foo ko xool kanam gaa ngi nes na si waaye bi mu nekkee amir boo ko xoolee da nga yaakaar ni kii daa doon daa entré bay doog a génn hôpital mu ni sama yépp laa bàyyi kon defal ni man ñu doog a mën a ànd soxna c'est pare pour jël lim am ci Allah ni ko dugal ko ci baytul maal pour ñu ànd ma ak yow ah mbokk yi yooyu jafe na de jafe na de ay centaine de millions ay centaine de millions ci poids parce que or la woon nga nangu ko dugal baytul maal pour paree sëyeeg waajoo xamante ni moom dañ la kaay ñu jóge ci tedd jëm ci tumuraan ci ngir ñu jaamu yàlla nga nangu ko mi ngi am nag ba tey nag man xam naa ñoo xam ne seen sëy tas na ci ñoo xam ne ñu am ay moyen lañ te li leen ko yóbbu mooy bëgg a dund seen diine loolu xam naa ko waxuma dégg naa ko de xam naa ko loolu nag li tax may wax loolu ngir ñu xam ni gis nga la fi newoon jógu fi ñu ko def na woon na fi nekkul ñu bëgg a baax ba tey ñu ngi fi dañoo néew Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas mu pare pour bàyyi moyen yi nga xam ni moom la amoon yépp dëgmal yàlla akub yonenteem lan moo tax Xaalid tuub ibn Saïd benn bis ci bis yi Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas mooy nettali Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas mooy nettali moom nag bàyyil xel ne amoon na ñaari frère kenn ki mooy amr kenn ki mooy abaan ñooy ñoom ñaar ñépp moo leen influencé ba ñu tuub benn bis xaalid ibn saïd ibn as dafa tëdd di nelaw nee na muy nelaw ba mu yàgg mu gént ñu di ko xëcc di ko ñoddi di ko tàbbal sawara jahannam mu ni ma yërndu seen ak kàmb goo xam ni baa juddoo ba tey musuma woon a foog ni am pax dana xóotee nii ma seen xeeti nit yi ñuy mbugal ci biir jahannam ma seen sawara ak ni mu ragloo melokaan wun la ma sa jox sawara rek nee na ma gis ko ci gént gi nee na mi ngi am ku may xëcc pour ma dugg ci biir sawara si yonent bi ni sàcc sama ndigg li nii di ma xëcc pour ma bañ a dugg te boobu tuuba ko dugg ci lislaam nee na fii maanaam fii tolloog ndigg nee na ñaari fii la laf yi la yonent bi téye ci ñaari loxoom di ko xëcc pour mu arrière nee na foofu ko yonent bi xëccee rek mu ni bëreet yeewu bi mu yeewoo nag affaire bi tiital ko nag mënatu la nelawaat ci guddi affaire bi di ko travailler xam nga gént gu dafa xaw a doy waar. kan ci saxaaba yi moo ma sa gént gént gu ni mel ak lan la lan la ko yonent bi tekkee woon. Abdallah ibn Omar lu mu géntoon. ah. waaw. waaw. waaw. ah yow kay yaay wax léegi nag après fu mujj. waaw. waaw. waaw.
waaye bu ci boole woon du ci julli guddi mu gën.
ah yow buñ paree dinaa la neexal ah waaw mag ñi mag ñi c'est la première fois nag mag ñi daawuñ tontu mag ñi moom daanaka ñëpp ay xëba naqata lañ woon xale yi rek ñoo daan tontu wax na dëgg noonu la demee Abdullah ibn Omar géntoon na gént gu ni mel yonent bi tekkiwu ko nag dane ko ni'ma rajulu abdullahi law kaana yaqum min al-layl abdullah de góor gu baax nga cey boo ci baloon julli guddi doomam nee na ba mu faatoo day qiyaamu layl ndax li ko yonent bi waxoon rek sallallahu alayhi wa sallam xaalid ibn said ibn al-aas bi mu yeewoo mu dal di tiit lool affaire bi jaaxal ko léegi nag problème bi mooy ku koy firil gént gi parce que moom tuubul moom du jullit léegi nan lay def muy problème am yàlla daal mi nga xam ni moom mooy baaxe ku ko soob waa ji génn yi këndëng këndëng yi rek xam nga boo jaaxle doxinu ko jaaxle far ni tëll yam ci abubakarin siddiq radiallahu anhu allahu akbar gis nga yàlla bu la naree gindi yàlla bu la naree bi di kullu asbaabil hidaaya yuyassiruhu llah sabab yépp la yàlla yombal tàmbalee ko ca gént ga gis nga am na yenn sacrifice yoo xam ne mbokk yi kenn du ko def yàlla di ko neenal inna allah la yudiu ajra al muhsinin la yudiu ajra man ahsana amala walladina jaahadu fi lahdi gis nga képp koo gis mu am ay moyen war a mën a tedd war a mën a noos war a mën a caaxaan nga dummóoyu ko te yàlla rek tax wallahi yàlla dana la teral ñun nag suñu problème teraangay yàlla ñun dañoo yàpp ni ci yaram wuy nes neseeg mbubu mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet ca la nekk fekk déedéet teraanga ji yàlla defal ko gëm yàlla fii la koy dóor teraanga ji yàlla defal ko gëm yàlla fii la koy dóor su ko defee da nga gis waa ji nga jàpp ni kii moom dafa am ay problème fekk waa ji yow fi mu nekk nii moom mën na laa yóbbaale ci li muy bànneexoo firnde bi mooy dinaa ko wax léegi pour nga xam ci dara Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas dajeeg Abubakarin Siddiq ni ko man de Abubakar damaa jaaxle mu ni ko lu xew mu nettali ko gént gi ni ko man daal damaa gént am ku may xëcc di ma tàbbal sawara ma yërndu ba seen sawara yonent bi xëcc sama ndigg li mu ne ko sa baay mii muy uxayxa moo lay xëcc demal la sawara yonent bi woote lislaam moo lay xëcc demal nga tuub te nga bàyyi sa caaxaan yi laa wax nee na bi ma waxee loolu nag ma xam ni kii wax na dëgg ma ne ko ana yonent sa sallam mu ne ma kaay ñu dem ma yóbbu la mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yegsee mu ne ko yaa muhammad ila ma tad'u yow li ngay woote lan la mu ne ko ad'uka ila allahi wahdahu la sharika la dama lay woo nga gëm yàlla mi nga xam ne moom rek mooy yàlla kenn waru koo bokkaale kenn ak lan mu ne ko wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu damaa bëgg nga gëm ni man mii di wax ak yow yàlla moo ma yónni ab yonent laa mu ne ko ak lan mu ne ko wa taxlaa ma anta alayhi da ngay summeeku dañ set wicc ci li nga nekk mu ne ko lan laa nekk mu ne ko min ibadati xajarin laa yasma wala yadur wala yubsar damaa bëgg nga bàyyi xeer yi ngay jaamu aw xeer du dégg aw xeer du gis aw xeer du jariñ aw xeer du lor ba ko wala yadri man abadahu mi man la yaabudu xeer wi ngay jaamu xàmmeewut ku ko jaamoo ku ko jaamu si wut xeer wi mën naa xam ne bàyyi diw ñëw na démb sellal ma xeer wi fa askan wi yëpp xeer wi la ñuy jaamu xeer wi est ce que xàmmee na ñi koy jaamu mu ni ko xeer woo xam ne ñi koy jaamu sax xàmmeewu leen gis nga yoon sa salam ku daloon ay wax la dafa am wax yoo xamante nii gis nga gor su boppam way soo ko wax su nekk amal andil nga ko problème xeer woo xam ni xàmmeewut ñi koy jaamu ak ñi ko dul jaamu dama bëgg nga ba ko nee na foofu rek mu ne ko fa inni ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah maa ngi seede fii ma taxaw ni yàlla rek lañ war a jaamu duñ ko bokkaaleeg lenn waxuma la kenn waaye muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la yonenteem la nee na ñu daal di seen nag kanamu yonent bi gël belbeli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kaana bil muminina rahima gis nga saa bu benn waay rëccee dee ci kéefër da nga koy gis ci xar kanamam saa bu benn waay tuubee dugg si ci lislaam da ngay gis belbeli gi ci xar kanam gi sallallahu alayhi wa sallam ah fitna tàmbali na nag sa baay di borom dëkk bi jiite jaamum xërëm am alal kum ni defal nga def kum ni bàyyil nga bàyyi doomam fettirlu fan ngeen mës a gis lu mel nii rek lu dul waaj am na problème lu ko waral. parce que baay ji day bëgg a wane kilifteefam ak kàddoom ci doom ji Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas nee na mu daal di commencé nag bi ko baay ji yëgee commencé di ko fitnaal fitna ju méttee métt xam ngeen nu mu ko njëkk a def yeew ci kër gi ni ko doo añ doo reer doo ndékki yow dootuma la joxati ka lekk mu ne ko fa allahu yarzuquni wa huwa xayru raziqin ba ma joxul ma lekk yàlla dina ma jox ma lekk ndax ñi am luñ lekk ñépp moo leen ko may allahu akbar mbokk yi xool leen bii pas-pas ci kuy doog a tuub yéen da ngeen a yaakaar ni saxaaba yi da ngeen da ngay jóge fee rek nga daal di bëgg mel ni saxaaba wala nga di leen diir mbagg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mili mili tonne ci or ci misaal noonu laa la ko mën a joxe ndax mooy montagne Uhud ay mili mili mili mili tonne ci or wala ay téeméeri téeméeri tonne ci or duma wax sax téeméeri téeméer parce que montagne Uhud boo ko doon teg ci teg te xaw ma ñaata tonne la ay mili mili tonne laay wax ci or yonent yàlla bi nee na boo ko yëkkati woon nga joxe ko fii sabilillah saxaaba yëkkati ti bëpp ceeb sarxe ko mooy ëpp tiyaaba fa yàlla nga ni ha mu ni même bu wàññee tib bi sax wala nasifahu même bu ko bacc baccalee tibb ba gën a tuuti ndank su ndaw ndankas xale xale bu tibb yonent bi ne xale bu tibb añ ni muy toll ceeb bu ko sarxe woon ab saxaaba yow nga santa sarxe ay mili mili tonne ci or saxaaba lay ëppalee allahu akbar ñooñu kenn du leen dab waaye xoolal gii nga mbokk yi kuy doog a tuub bàyyi ji yeew ko ni ko tey doo añ tey doo reer tey doo ndékki am na awka rizq am na awka alquut mu ne ko in manaatani fa inna allaha yarzuquni ma aishu bi soo ma xañee lu ma lekk yàlla dina ma jox lu ma lekk noonu fitna yi nag daal di tàmbale takkarnaase abubakar khadija zayd ibnu xaaritha saad ibnu abi waqaas Saïd ibn Aas daal di ñëw Xaalid ibn Saïd ñëw nekk juróomeelu nit umu Xaalid doomam ju jigéen la nee na abi awwalu man kataba bismillahi rahmaani rahim nee na sama baay ci lislaam moo njëkk bind baatam bismillahi rahmaani rahim léegi nag fitna yi tàmbali balaa maa tàmbaliwaat ci fitna yi damay wax mbokk yi ni ku nekk ci ñun ak kuy waaj a ñëw na préparé wu bu dee sa kaw la dal nga xam ko. bu dee ci say mbokk la dal nga xam ko gis nga képp koo xam ni maanaam man sama nattukaay man man en tant que nit ku nite rek koo xam ne nit ci li nite rek laay àttee man damaa jàpp ni ku bàyyi yii yëpp ñëw dëgmal ci lislaam yàlla daf la waroon a gàtte ba nga yëg ko ci lislaam du noonu la xel loolu la nangu parce que sacrifice bi nga def li la yàlla waroon a fayee mooy gàtte la ba nga yëg ko waaye xel ak li lislaam di àtte bokkul gis nga boo defee loolu yàlla dana la ñaas ci ay jafeñ-jafeñ ba sa digg ginnaaw gi noox ngir ñu xam ndax yow li nga bàyyi dëgg la ci yow wala déet effectivement waa àddina sax dañ koy def waa àddina am na yoo xam ne boo ko defee faw ñu defal la test xool ba xam yow dëggu nga ci li ngay wax wala déet benn waay boo xamante ne dénk nañ ko kees mu këpp ko kees ko ñu jiital ko entreprise mu daal di daaneel banque ba ñu nangam nangam ñu bëgg koo namewaat faw ñu xool sa yëf waa àddina sax dañuy def loolu sunu borom saa bu nit ki bàyyee yu bari dëgmal ko mbokk yi suñu borom da koy teg ay natt yu métti alif laam miim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun suñu borom mu ne ah yéen da ngeen a yaakaar ni da ngay fàqee ca làng ga rek ni bàyyi naa li ma nekkoon lépp ñëw naa ci lislaam ñëw naa ci sunna ñëw naa ci nangam yàlla mu ne ma bàyyi la rek nga dem ak sa cëggal guy mu ne déedéet wa laqad fatanna alladina min qablihim dinaa la teg ay natt yu méttee méttee métti comme ni ma ko tegee woon ñi la jiitu woon waaw lu mu ci jublu mu ni fa la yaalaman allahu alladina sadaqu wala yaalaman alkadibin sélection la yàlla yi def ñi nga xamante nii sama waay waxuñ dëgg léegi ñu arrière sunu borom nee na ñi wax dëgg moom nattu yi du leen teree xotti fan jëm fii may wax ak yéen am na ñoo xam ni bi ñu xottee yoon wi di dem bi nattu yi ñëppee dañoo dëpp fii may wax ak yéen am na ñoo xam ni nattu yi yegg na foo xam ni ma allahu bihi alim te ñi ngi dund ila yawmina hada te tey lañ gën a dëgër ca lañ nekk loolu mooy li yamid allahu alxabitha min altayib yàlla mu ne day lay day lay day lay bu ñu layee ñu ràññatle li ñu tuddee xarba la lay yàlla mu ne ma ràññatle génne ñi nga xam ni sélectionné ñi nga xam ne ñoo ñu dëggu ak ñi nga xam ne ñoo dëgguwul ñu sell ak ñi sellul ki sell nag moom problème bu ñëw rek day def ni waa ji def waa ji nan la def Xaalid ibnu Saïd nee na damaa tuub rek sama baay boole maag benn jaamam bu ñuy wax rafia ak sama ñaari frère kenn ki ñu naan ko abaan kenn ki ñu naan ko amr ni leen suivral mi leen ma booy bi te leen ma suivral booy bi nee na ñu ñëw fekk ko muy julli dëgg la nag amaana ne kenn ci yéen naama julli amaguloon ahan kay julli amoon na kay julli gi nga am tey moo amul woon waaye julli moom naka jekk mosu fay jug ci diine yonent yi nee na ñu ñëw fekk ko muy julli biñ ko fekkee muy julli nag eh, dëgg la seen bàyyi leen yónni waa ji tey mu am problème moom muy julli waaye ñoom ñi ko doon yërënd am nañ problème de parce que ñaar ñi ko yërënd julli koo gaa leen topp di leen topp di leen topp ba mën nañu koy bàyyi ba ñu tuub dugg ci lislaam parce que kii li muy def lan la muy question bu amul réponse nee na ñu daal di koy jàppoo yët ko baayam ni ko dañ koo fekk muy sëgg ka siggi affaire yooyu Muhammad di def loolu lañ ko fekk mu boobu xamuñ sax ni julli la tudd affaire yooyu Muhammad di def lañ ko fekk mu di ko def bàyyi mu ni ko idan uhrimuka min rizqi mboolem lu ma la doon jox ci sama alal dama koy dagg allahu akbar yéen a ngi fàttali ku mel ni Muaad ibni Jabal gis nga Muaad bi muy tuub dafa fekkoon baayam yaayam am alal alal du bare bare bare bare bari am na ñu koy misaal nee nañ dem na ba parfum bi muy parfum matin du bokk ak bi muy parfum soir xam nga kooku yor na dëgg dàll yi muy sol ci semaine bii du bokk ak dàll yi muy sol semaine bii di ñëw mu bàyyi ko ba yaram bi di xub xam nga xam nga benn waay boo xamante nii daanaka kii climatiseur la tàmm daanaka moo ne ca oto ba moo ne ca bureau ba moo ne ca nangam moo ne ca nangam ila axirihi gis nga waa jooju soo jékki-jékkee rek yóbbu ko ca gott bu sori ba ca Tambacounda day am problème du question ay ñàkk gëm yàlla ak yooyu déedéet problème bi mooy yaramam xamut loolu moo tax day feebar gis nga saxaaba yi bi ñu jógee màkk ñëw Madina sax dañoo feebar lu tax changement de climat bee ko def dafa dem ba yaram bi di xub xub laa xub comme waasintóor ni muy mel ndax ñàkk gu mu ñàkk xiif Xaalid bàyyi ji ni ko li ma amoon lépp ci lu ma la doon jox dama koy dagg mu ni ko fa allahu xayru raziqin yàlla miy joxe moom moo gën ci ñuy joxe te dama jox saa wàll bàyyi ji xam ni pexeem jeex na fekk mi ngi yoroon ak weñ mu yëkkati weñ rek dóor ko ko ci bopp bi nee nañ bi mu ko dóoree fii dafa xar daanaka yaram yépp di sotteeku deret waaye mu dëgër ci lim dëgër rek bàyyi ji ni ko dinaa la tëj ñetti fan doo lekk doo naan moom mu def koy kaf bàyyi ji def ko dëgg bàyyi ji dugal ko ci néeg bu lëndëm te li gën a kéemaane gis ngeen gaa yi am na bi ya kaso yu nekk ci àddina bi yoo xam ne xam nga nañ ko def dañ koy xatal ba nopp lëndëmal ko kooku yan conséquence la mën a jural doomu aadama bi ci njëkk mooy air bi ngay nooy du baax bi ci gën a garaaw mooy loolu day yàq bët day yàq bët gis nga trois jours bu ñu la ko tëjoon ci néeg bu lëndëm gisoo leer bët bët yi di gis lëndëm kese kese loolu sax mën na laa gumbaloo mu tëj ko ci néeg bu lëndëm ñetti fan yoo xam ni ubbiwu ko lekkul naanul lekkul naanul ñetti fan laax ñetti fan lekkul naanul waaye nag gis nga gis nga ñi yàlla subhanahu wa ta'ala da leen defaroon ay may nag bi mu ko ubbee ci ñetteelu fan ba fekk gaa yi gis nga façon bi ñu xewal léegi ak a fee yàgg façon bi ñu xewal léegi au lieu que bàyyi ñëw tijji ko ne déedéet dafa def benn pexe gis nga sa doom bu la bëggee të da ngay dem seeti ñeneen ñoo xam ne ay mbokkam la ñu ñëw jéem koo convaincre tuuti pour ñoom ñu man gis nga loolu ak a fee yàgg bàyyi ji xam ni bëggu la ku ne ku dëgër bopp la mu dem seet ay nijaayam ak ay mbokkam yooyu ni leen comme xiifal naa ko ñetti fan dem leen yéen ngeen tijji ko ndax taananteeg moom ndax mu dellu gannaaw ca ñeenteelu fan ba ca suba sa mbokk yi daal di ñëw ay nijaayam ak i nangam ni ko kayfa anta yaa xaalid mu ni ataqallabu fi niamillah waaw xaalid na nga def mu ni xanaa di di noos xanaa di noos ataqallabu fi niamillah mooy maa ngi noos loolu rek lay tekki parce que maa ngi maa ngi balla ballartiku maa ngi wëlbatiku ci xéewali yàlla yi loolu lay tekki mooy maa ngi noos rek waa ji xiifal nañ ko ñetti fan marloo ko Xaalid ibn Saïd yow ci loo ne mu ne xanaa di noos rek kenn ci ñoom daal di tëb ni yow da nga dof yow sa xel mi demoon dellu seegul ba léegi mu ne ko xel mi kay mosul dem bay dellu si kii kay mi ngi fi bopp ba léegi yow munoo yërëm sa bopp nga bàyyi li ngay def nga topp sa baay mu ne ko sama baay duma ko topp ci ay caaxaan benn baat rek ngay wax ci laata ak uzza ak nangam mu ni kon nangam taanu laata allahu akbar te xoolal xiifal nañ ko ñetti fan waxal benn baat rek benn baat bu gërëm lool laata wala uzza mu ne nangam taanu laata laa wax lu waaji xam nga xam nga lu mel noonu day tiit maa mel ni ku ni yàq maa am tiit parce que loolu tamit loolu moo daloon waajo ba waxee Aboubacar ba ko Mughira ibn ba ba ba ba ba num turati ba Urwat ibn Mas'ud di di laal Abubakar Abubakar loolu la ko waxoon la mu waxoon nag nee woon naa du ma ko wax moom te tayit du ma ko waxaat moom ndax la mu wax moom defe naa moo gën a garaaw sax lii ma wax nii bi ma wax léegi nii ba Aboubacar wax moo ko gënoon a garaaw benn yoon boobu laa xam ci siira fu Aboubacar waxee loo xam ni moom nopp bu ko dégg daloo moom lu bees benn yoon boobu laa gis ci siira Aboubacar mu wax ci gémmiñam loo xam ni moom loolu moom nee naa man ñi ma ko wax du ci biir jàkk ji du ci biti jàkk ji ndax moo ko tekkee ci wolof moom defe naa da ngeen sakk seen nopp yi moom daal lam tudd moom lu garaaw la moom lool sax lool daal di ko jëmale ci laata wolof nag arab yi nag mën naa ko wax moom waaw ndax dana ko woon um sus badra laat loolu la waxoon waaye loolu moom boo ko tekki woon ci wolof moom da ngay sakk say nopp bu soob yàlla moom moom ci wolof boo ko tekki woon da ngay sakk say nopp waa ji mu ni ko wax lu ñaaw jëmale ko ci laata ak uzza mu ni ko yow da ngaa dof mu ni ko laata ak uzza ay xeer lañ laa wax yéen a leen amal njariñ waaye ñoom amaluñ leen njariñ mu ni ko waxal benn baat kese ma wax ko sa baay mu kontaan ci yow mu ne ko fas yéene wu maa kontaan loo sama baay fii ak moom kontaan la wut sama borom man foofu nag baay ji mer muy Saïd ibn al-Aas nga xam ne mooy Abu Uhayhata Abu Uhayhata mooy turam mooy dàkkantalam foofu nag mu mer dóor na ko ba xaañ ko ak lan tëj na ko ñetti fan ci lëndam te lekkul naanul léegi xam nga nu mu def. da koy yeew ba mu dëgër ni leen bu njolloor jotee génn leen ma ko ca batxaawu makka njolloor mooy lan digg bëccëg wa ma adraakum maa digg bëccëgu ma makka su ma benn nijaay bu fa nekk nee na ma bu digg bëccëg jotee naaj wi tàng dëgg dëgg dëgg dëgg boo jëlee pool nga teg ci nen teg ko ci kaw xeer xeer wi toggal la nen bi loolu moom ku ku fa dem moo ma ko wax maanaam bu naaj wi tàngi dëgg dëgg ci xeer yi nga jël pool teg ci nen booy omelette mu ni nga teg ko ci kaw xeer wi moo lay toggal nen bi ndax ni mu tàngee te xam ngeen ni xeer day jàpp sawara moo tax borom bi ca waa sawara mu ni waquduha naasu wal xijaara parce que xeer day aspiré sa tàngoor léegi dañuy bàyyi ba naaj wi tàng ñu tag ko ba mu dëgër seet xeer wu tàll ñareet nga xamante ni bu ciy tëdd moom day ñoral yaram bi moom ñu summi mbubb mi daal di koy tëral ci xeer woowu comme ni ñu doon def ñoom bilaal ila axir parce que bàyyi ji gis na ni gars yi dëgëroon saxaaba yi am na ñoo xam bi ñu leen defee noonu dellu nañ gannaaw am nañu dëgër bopp ñoo xam fa lañ faatu am nañu dëgër bopp ko dëgër bopp ba dëgër dëgër bopp dëgër bopp dëgër bopp ba wëndeelu comme ñoom xabaab nga xamante nii moom dañ leen a mujj faf bërgël ndax da ngay dem ba xam ni kii yow yaay mujj sonn rek waaye moom du sonn loolu laay faral di wax maanaam ku yëg ni li ngay def ak jaamu yàlla yow doo ci sonn noonu gaa yi daal di koy bàyyi mu ni an yulquhu bayna alxijaara nee na wasam leen wasamal leen ma ko ci jant bi su tàngee gaa yi dañuy bàyyi ba digg ba ca jot ñu génne ko di ko diri di ko diri xoolal di ko diri laax diri yeew bu mu ci tànk bi di ko diri di ko diri ba ca batxaau makka yëkkati ko tëral ko ci xeer bilaa lu mu doon wax moom ahadun ahad waa ji naan alhamdulillahi alladi akramani bil iman wa aazzani bil islam dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla baax mais dëgg dëgg dëgg yàlla baax man de xam naa ne lu bon la ma nekkoon yàlla teralee ma lislaam ji ñu neex ji xam nga xam nga ku lay mbugal jàpp ni fii la gën a maanaam sab noonu nag bokk na ci li ko gën a xor ñooñ mooy lam foog ni loolaa lay metti nga wan ko ni loolaa ma neex faf loolu nag moom ba tey nag moom mi ngi mës a jaaxal nit nag gis nga lii la Abdullah ibn Xusaafa jaaxalee woon buur ba jéem na ko naandoo sàngara sottiwut jéem na ko booleeg jigéen sottiwut jéem na ko booleeg tëj na ko ñetti fan sottiwut jox na ko yàpp mbaam xuux sottiwut ba mu demee ba xam ni jéem na ko rey lu sottiwut ba mu demee ba jaaxle dañu ko yow lan nga bëgg lan nga bëgg mu ne ko xanaa nga libéré ñu ñu dem te xam ni mënoo ci ñun dara buur bi ni ko léegi fóonal sama bopp boo fóonee ma libéré la mu ni ko fóon goo xam ne man dong ngay libéré soxla ma loolu boo ñu mënee libéré ñun ñëpp ma fóon ko soo ko mënu delloowaat ma fa ma nekkoon buur bi xam ni kii da nga koy da ngay sonal da nga yàq sa temps ci moom rek buur bi ni ko foogoon sa bopp mu foon bopp bi mu libéré ko mu ne ko waa an jamiul muslimin ñun xamuñu intérêt personnel ñun ñëpp nañ demandoo gis nga waa ji mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ma terelee lislaam bii maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ma jox neexitu ngëm yàlla waaye yow xanaa yëgoo mettit bi dinaa ni yow xanaa yëgoo mettit bi mu ne ko ahan kay yëg naa ko kay waaye damaa fàttaliku sama gént ga ma xam ni tàbbi sawara ga ma naroon a tàbbi sawara su doon tàbbi naa fa la ma séen moo gën a metti lii ma nekk nii allahu akbar mu ne la ma séen ca sawar sa tàbbi fa moo gën a metti lii mu ne yonent bi nag moom man xaw ma lu ma koy fayee mu ne wa jazallahu nabiyahu wa safiyahu anil islam yonent bi moom xaw ma lu ma koy fayee allahu akbar jamono bi nga jàppee ni waa ji dana jooy dana tiisu dana siisu dana am problème keroog la gën a dëgër mi ngi wax ay kàddu yoo xam ni yow mu ne man yonent bi xaw ma lu ma koy fayee sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla jaarale lislaam ci loxoom ba ma jot ci allahu akbar mbokk yi damay faral di wax ni gis nga siiratu salaf faw ñu di ko jàng faw ñu di ko jàng kan mo ginnaaw ñii kan ngay déggati ci àddina mu fees sa bët ngir ay jëf yu ñu naan daf koo def kan kan kan ngay dégg ñu ne ay xar baax wala dañ koo jaarale fii jaarale ko fee nga yéemu ci moom te bàyyi gaa yi lii kan kan nga xalaat ñu def ko ko koo jàpp ni kii rek ku nu naw la ndax def nañ ko lu toll nii déedéet déedéet lu toll nii man lii boo ko defee sénégalais sax mbaa du dee faf benn yoon mu jeex lii jamono jii nga xam ne su ma suñu yaram yi 60 ans yii yaram yi nga xam ne 60 ans bu ko yem borom di dee yii xeeti métti dama ne la boo ko ko tegee sax moom problème noonu Khalid ibn Saïd ibn al-Aas bàyyi ji continuer ci fitna yi ba dem na ba amatut pexe léegi nag xol bi jeex na nag léegi xol bi jeex na xam ngeen bi xol bi jeexee lu mu wax dani gii gàcce moom duma ko deyalee fii ci dëkk bi mu buub ay bagaasam gedd bàyyi alalam génn màkka dem allahu akbar mbokk yi xoolal li mu bàyyi alalam ji gedd dem ci benn dëkk fa la nekk di misère ba dee fa ngir nee na gàcce gii kuy saaga laata moom nga yeewoo sama kër te ma nekk kilifa ci dëkk bi loolu duma ko fekkee mu gedd mu génn dëkk bi ba yàlla tàbbal ko jahannam mu faatu dem jahannam mu ni wallaati wal uzza la azilanna bi maali baidan an makka fa fa dalika xayrun lii yóbbu li ma mën a yóbbu bàyyi fi li fi des laay def loolu ma gënal may nekk fii ñuy saagalaata ak uzza noonu Xaalid ibni Saïd ibni al Aas continué ci li mu nekk ba benn bis nag mu am occasion rëcc nag rëcc xam nga dañ koo yeewoon benn bis nag mu rëcc loolu nag bari na ci gars yi ñun leen ko doon def ñii dañ leen di rëccal ñee ñooy rëccal seen bopp gis ngeen Salman gisoon ngeen dundam daa rëccoon ah gis ngeen Abu Basir dafa rëccoon ak saxaaba yi jot a jàll nga gis leen dañ leen doon fitnaal ca Màkka ñi rëcc gis nga boo delloo ci téere bu mel ni al isaabatu fi tamyizi saxaaba am na ay téeméeri téeméeri saxaaba yoo xam ne su ma tuddoon seen tur nga ni kii moom tey laa mas a dégg tur tur wi waxuma la ak ay jëfam tur wi tey nga ko mas a dégg lu tax parce que siiwuñu dañoo faatu ca faatu gu njëkk ga ca faatu gu njëkk ga ndax ñi ca gënoon a metti le mooy ñi nekkoon ay jaam ñi nekkoon ay jaam xam nga tey ku nekkul jaam nekk gor bu la sa bàyyi dee fitnal wala sa ndijaay mën naa ñëw opposé wu wala sa yaay wala kenn ci famille bi ko xam donte yéefar la mu opposé wu lànk ni kenn du la fitnaal waaye jaam kuy opposé wu jaam boo xamante ni ca marché ba lañ ko jëndee woon amuli mbokk kenn bokkul moom ci dëkk bi kooku bu ñu koy rey kan mooy opposé wu moo tax Xaalid xabaab sonn ibn Mas'ud sonn bilaal sonn ila axiri gis nga ñooñu loolu moo taxoon ñu sonn lan moo tax ay jaam lañ woon amuñu woon ku leen xettili ku dul seen borom subhanahu wa taala noonu nag bàyyi ji génn ndeysaan dem taif fa la nekk xatta maata kamadan muy misère ba dee kamat mooy di misère di misère di misère ba dee tàbbi sawara lan moo gën a metti loolu mbokk yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digalee gaa yi nag nañ gàddaay dem Éthiopie fekk waa ji muy Xaalid ibni Saïd ibni al-Aas moom booba borom bi subhanahu wa taala dogal na mu rëcc ci fitna ji nga xamante ni bàyyi ji mi ngi ko doon fitnaan bi mu rëccee nag yàlla defal mu nekk Makka ba am occasion takk soxna ànd ak soxnaam dem Éthiopie gis nga Éthiopie googu doom bu jigéen bii di ummu xaalid nga xam ne moo nettali ni sama baay moo njëkk a bind bismillahi rahmaani rahim doomam jooju mi ngi juddoo Éthiopie xabasha bi mu demee xabasha def na fa ay at daanaka fukki at def na ko xabasha ba yonent bi gàddaay dem Madina ba am fab diir laa wax ba am fab diir ba xaybar jàll ba xaybar jàll ci atum juróom-benneel xaw ma juróomeel ca gàddaay ga ci la doogu ñu gis mbokk yi balaa may continuer ma wax nii xoolal tey kan ci ñun mooy koo xam ni say problème say problème yi nga am jege na lii loolu alaamatu istifham mooy alaamatu sual point d'interrogation kenn ku ne ci ñun na tontu rang bi fii laa koy tàmbalee ci man wër ba yegg si waataat ci man kenn ku ne ci ñun yaa ngi jàmbat fi mu ne kenn ku ne yaa ngi jàmbat kii feebar lay jàmbat kii affaire bi doxut kii liggéey bi doxut kii temps yi awma xaalis kii nangam nangam kii sama sëy bi daa am problème kii sama jëkkër laa am kii sama jabar laa amal problème kii sama doom ji nangam maanaam problème yoo xamante ni boo ko gam-gam léegi yii problème problème yu ñàkk fayda lay doon lu ñàkk fayda mas naa leen a wax benn bis ma ne la am na saxaaba yoo xam ni ñun liñ naan mooy suñu problème boo ko taxawoon ci kanamu saxaaba nga wax ko boo sàggantul mu mecc la parce que day jàpp ne yow da ngay fontoo nit ñi da ngay fontoo nit ñi maa ngi fàttaliku bi ñuy jàng bi ñuy nekk ay gone di jàng li may wax du problème waaye dama koy misaalee comme lii rek dafa am benn waay bu ñuy bu ma bokkaloon classe bu ñuy wax Aline Badara waa Casamance la man fi ma doon jógee di jàng dafa sori lool ay kilomètres laa doon dox doog a dem école moom it kazalika dafa sori lool benn bis ñu daje may jàmbat lan laa wax dama wax ne damaa xiif ndax ndékkeegu ma waa ji keroog la ma wax lu yéeme mu ni man ba ma bañ da bokkee classe ba tey maag yow mu ni man du ma ndékki aw ma ci dëkk mbokk mu ni man du ma ndékki mu ne yow da nga nuy fontoo loolu nii la ma ko wax da nga nuy fontoo yow mu ne man du ma ndékki waa ji ay at ñu gëj a gisee bi ma ko mujjee gis maa ngi ko gis buun gii mu yore fa école mag la woon boobu moo ñu magoon waaye xoolal loolu mu ne ay at du ma ndékki xoolal ki ay at ñu bokk classe man musumaa xam du ndékki man may jàmbat damaa xiif man benn fan wa kadalika xool ko ci suñu misaal yi ñun xool ko ci suñu misaal yi ñun tey da ngay gis koo xamante ni su waay benn problème bu ndaw la am ci liggéeyam rek commencé jàpp ne àddina bi suba ci ngoon suba ci ngoon àddina sax du tukki suba ci ngoon ndax aju àjjuma la àddina yi tukki moom xam da ngay yaakaar ni suba lay tukki te suba la alxamis àjju àddina sax du tukki bisub alxamis faf léegi kooku am problème nga xam ma ma xam ca pegg ba waajoo xam ni waajoo xam ni nee na waxuma salaire am waaye moccaatam rek business yi mu doon def ci biir liggéey bi mooy business yu dagan rek parce que am na lu mu doon liggéey nee na doon na ci am 200000 du daganul sax laa parce que métier ma daganul bi ko yàlla wërsëgalee mu xam sunna waxuma la salaire am de moccaat bi rek laa wax te salaire am ëpp loolu ki may wax dama koo xam suma xarit la maa ngi fàttaliku bis bi muy jël décision yi day bàyyi liggéey maag moom ci naaj lañ taxaw di ko waxtaanee mu ni bis ni ki tey démissionné naa loolu maadaama man la laaj ma xamal ko ni ko lii dëgëru mu pare pour bàyyi loola tey jii alhamdulillah wax dëgg yàlla tey mi ngi sant yàlla waaye balaa moo sant yàlla xam naa ko mu dund ci ay problème loo xam ni man laahu bihi alim lii moom kenn nettaliwu moom maa ko dund man ak moom kenn ngoog keneen ngi koo xam ni yàlla da ko wërsëgal alal mu am alal lool waaye lam doon liggéey dafa daganut bi mu xamee lislaam dafa pare pour bàyyi loola delluwaat ci lislaam fii suñ daara ji am na jigéen ju fi mës a ñëw di jàng si borom këram nee na ma salon la yoroon mu ne lu gàtt lu yem ci pooj yi la doon sol nekk jigéen ju mat jigéen nag waaye nag mën a caaxaan lool yàlla wërsëgal ko mu xam sunna salon bi waxuma la ay param waaye ay mbokkam ay bàjjanam ak i tàntaam sax nee na moo leen ci doon jàppale biñ ko xamalee ni loolu dafa araam waxuma la da koo tëj de xam nga lan la ma doon laaj est-ce que appareil yi mu doon defaree ay bopp ak i nangam est-ce que dagan na mu jaay ko loolu la ma doon laaj est-ce que dagan na mu jaay appareil yooyu loolu mooy ab laajam ak yeneen ak yeneen ak yeneen démb démb démb démb xaw ma démb xaw ma war ki démb xamatuma am na ku ma nettali poste buñ ko woo pour muy liggéey poste ba charte bi mooy da ngay dindi sa jilbaab mu ne bu dee loolu ma bakko ci poste boo xam ne macha allah wax dëgg yàlla ah neex naa xemem de maanaam yëf yi li tax ma di ko wax mooy ngeen xam ne gis nga li baax mi ngi baax ba tey gis nga nit ñaa ngi gis nga yow boo yambaree yambaree nga toog foofu rek waaye nit ñaa ngi daw ay vitesse yoo xam ne am na ñoo xam ne fi mu ne ñi ngi daw ay vitesse luñ man ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam naa waajoo xam ni fa mu nekkoon di fa liggéey salaire bañ ko doon fay xam nga te waaj te li ma gën a yéem ca waaja sax mooy sunna sax leerul ci bopp bi lool day commencé clignoter rek di clignoter nii nga xam ni moom mi ngi seen affaire yi. nee na dañ ko jëloon ci benn station muy jaay ci select bi waaye foofa ñoom dañuy jaay sàngara mu ni man moom du ma jaay sàngara même bu fekkente ni loolu mooy dagg sama salaire na ko dagg. noonu la fa jógee moom sax fa moo dàq boppam faf nag moom moom sax moo dàq boppam mu jóge fa foofu mooy ci côté wàllu wàllu googu ci wàllu ay problème ñoo xam ni ñi ngi dund ci ay problème ci ay xiif mas na ma leen nettali jenn jigéen joo xam ni foog naa mbokk mii ci sama càmmoñ su fàttalikoo li may wax dafa yàgg su fàttalikoo dina xam ki may wax ndaw soose ci jamono jooja bi may dem di ko seeti dama ñëw yaay ji ni ma gis nga lii miir bi nii la mel mu- miir bu jaune yaay ji ni ma gis nga lii ñuul ma xool gis lu ñuul ci miir mu ni waaw mu ni ma bopp bi lay jël moo fii lay wéer di xalaat rek moom moo ñuulal miir bi nii lan moo xew dafa feebar ñu war koo opéré bàyyam ni ko bu génn ci lim nekk du ko opéré jamono jooju ma laajee lu ñu doon lekk mu ni gerte caaf lay mën a lekk gerte caaf am na kenn koo xam ne nettali na ma ñëw na ba fii seet si ma nee na toll nay jamono moo borom këram dañuy woor ba ngoon jot fukki dërëmu caaf la ñuy jënd ak ndox moom la ñuy ndogoo parce que amut jëkkëram amut te ñu ngi dund seen diine te loolu rek moom wa ma naqam minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid kese fan yii passé nettali nañ ma waa joo xamante ni dañ ko yóbbu ci machine bi mu yéeg xaw ma tracteur la xaw ma qu'est-ce qu'il y a seen oto kii yooyu daal mu yéeg def entretien affaire bi normal ñu ne ko sa tubéy jii ngay cëkkal na ngay bàyyi mu ne loolu bu dee loolu jël leen seen caabi mu dem yoonam kooku may wax ñëw na ba fii jullee na fii ci jàkk ji ba tàyyi maanaam dama bëgg ñu xam ni gis nga fi mu nekk nii ñi yëf yi jaral ba tey mi ngi leen di jaral ñi yëf yi jaral ba tey xam naa jigéen joo xam ni li ko teqaleeg borom këram sa jilbaab bi ngay dindi mu ni ko bala moo gën a yomb ba ko mu càqali ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ay nit yu am problème yu rëy a rëy rëy rëy rëy yoo xam ni ñii ñi ngi xiif ñii problème mu lekk lu ñu lekk la ñu am am na ñoo xam ni seen jàng yàqu na ay cadre yoo xam ni seen bàyyi ñu am ay moyen lañ di leen fayal privé ndax xeeb public su naa leen teqaleeg loola ak yeneen ak yeneen ak yeneen fan yii passé am na ko ma woo nee na si li mu doon liggéey daal ci misaal daal mooy gars yi nga xam dañoo xewal di xëccalaate ay fiil di def ay film porno ay nangam nangam ci kër yi xaw ma nu ngeen ko tuddee nag seen affaire boobu. biñ ko ci leeralee ba noppi bi ma mujjee woog léegi matul semaine mu ne ma insha allahu démissionné naa même bu may ñàkk sama dépense baax na maanaam yii mbokk yi da ngeen tax ngeen xam ni dëgg la ñu baax ñi néew nañ tey waaye ñu ngi am ba tey de ñu ngi am ba tey. problème yu méttee métti di souffrir ci biir kër yi ngay dajeeg waa ji suba ak ngoon nga jàpp ni fi mu nekk nii kii mi ngeeg lu dul jeex fekk li muy dund bu la ko waxoon nga ni est-ce que nga xam ni kii du sa morom ba mu la rombee sax jàgg dafa jaawasal xantara moom jéggi na pont bi bay dem yow yi jéggee goo yow lii nag mbokk yi lii mooy thamara meññeent bi am ci xayaatu saxaaba mooy ñu xam ni saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain bokk na ci liñ mënee woon keneen ku dut ñoom mooy góorgóorlu guñ góor góorgóorlu ci yàlla daf leen di jaral subhanahu wa taala mu addin man yu addin kon mbokk yi yooyu faw ñu xam ko ci dund saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain njariñ bi mu ñuy julal mooy amaan na kenn nan ah saxaaba yi day ñoom kii kenn mun leen a roy gis nga mbokk yi fi ñu toll nii am na ñoo xam ni ci côté arabe ci côté français ci ñaari wet yépp laax de ñi ngi yore ay diplôme yoo xam ni bu doon yii saf waa àddina dong moo leen saf wallahi ñiy war 4x4 yi seen affaire yu sew sewaan yii du ma ko tudde sax yu dijj di jaan parce que yu ñàkk fayda yu sew sewaan yii mën nañ cee am maa la ko wax foo dem nag gox boo dem fekk ko fa am na ñoo xam ni bu dee ay diplôme dong ñi ngi yore ay diplôme yoo xam ni buñ ni la woon yor nañ diplôme sàngam nga weddi ko te yitteelu leen loola xott suukar moo yam ci ñoom am na ñoo xam ni yàlla baaxee na leen ci ay moyen loo xam ni tey loola feeñut ca ñoom déedéet am na ci ñoo xam ni yàlla wërsëgal na leen ci ay xeeti wërsëg yoo xam ni wax dëgg yàlla bu doon àddina doo nga leen yitteel danañ def ni waa àddina def loolu bis bu ne nga gis ko ci côté góor ñi waaye ci côté jigéen ñi man xam naa université ñoo xam ne ñi ngi leen kale ba léegi saa bu ñu defee examen duñu nangu ñu jàll xam nga lu tax seen voile yi kese ba fii may wax yow xam naa loolu man ak yeneen ak yeneen yoo xamante nii daanaka mu ne su ko tudd sax da ngay nuppe rek gis nga ay cadre yoo xam ni wóor na leen ñii ay cadre lañ tey ci diine nga naw leen waaye boo demoon ci wàllu àddina wàllu administration ay cadre lañ fa waroon a mën a doon waaye dañoo xam ne lii jëmut kër yii faw ñu bàyyi ko xel mbokk yi bul yaakaar ni képp kuy kallaw kallawee rek daa ñàkk wala daa amul fu mu jëm wala nangam déedéet am na ñu am fuñ fanaan ba noppi fanaan biti am na ñu am lu ñu lekk ba noppi xiifal seen bopp am na ñu am lu ñu lu ñu sol ba noppi jox seen mbokk mu sol moo leen gënal loolu mi ngi am de loolu bàyyi ko xel lii nag su amee misaal yi ma mujjee joxe yépp boo gisee ma ciy gën a baril mooy ngir nga xam ni ñi bëgg a baax ba tey ñi ngi baax ñi ngi góorgóorlu ca góor ña ak ca jigéen ñi wasaabirina wasaabiraat muñkat yu góor yi muñkat yu jigéen yi ba tey am na ñoo xam ne ñi ngi muñ di dund ay yëf yu métti xaalid ibni saïd ibni al-aas waa ji ko rey kéemtaan gi mu gis ci faatoom moo ko tax a tuub xeex bi nga xamante ni jullit ñi ca maarakatu faxlin te xaalit ñoom jiite woon ko bi mu amee muy xeex bu méttee métti ca la abaan bokkoon ak amr fekk ñoom ñaar ginnaaw bi tuub nañ abaan ak amr ñoom ñaar ay frère lañ ci xaalit abaan nag ku amoon alal la abaan mii ngay gis dafa mel ni xanaa moo doon bàyyam ci am alal ku bari woon alal la gis nga keroog sulxul xudaybiya bu ngeen fàttali ko bi ma koy nettali nee naa leen bi mu njëkkee ma Ousmane dikk Màkka ñu ni yonent bi Ousmane faatu na yéen a ngi koy fàttali Ousmane faatu na waa Màkka rey nañ ko ba mu jaayante mooy inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allah aaya jooju Ousmane bi mu demee Màkka ka ko dalaloon mooy abaan mii may wax abaan mii moo ko dalaloon ni ko kaay yow sama mbokkum deret nga te xam nga ni ñun ñu am ak kilifteef lañ ci dëkk bi moo ko dalaloon këram abaan mii ak amr ñoom ñaar ay frère lañ ci kii nga xamante ni moom mooy Khalid ibn Saïd ibn al-Aas Amr keroog mi ngi faatu foofu waaye mbokk yi borom xam-xam yi dañuy wax ne ku mel ni Ibn Kathir ñoom nee na bi muy faatu ñi ngi fekk benn caw ka jaasi la ñu caw fii ci xarante ñaari bët yi fii la ñu caw jaasi ji xam nga lu ko waral waa ji da di kéemtaanu yàlla goo xam ne gaynde la woon ci xeex. di tëbëkkat dal di rey ci romain yi loo xam ni romain yi bi ñu ko gisee dañ ni kii nañ ko teel a sàkkal pexe bu ñu ko sàkkalul pexe léegi mu jeexal xam nga gars yi nuñ def dañu def benn cercle boo xamante ni ay romain yu bari lañ boole rek ëffal ko waa ji te gis nga biñ ko ëffalee lu gàtt gàtt gàtt gàtt balaa ñu ko rey rey na ci ñoom lim bu baree baree baree bari allahu akbar mbooloo mbokk yi di sot sotoo kenn nit mbooloo yore ay jaasee ki fet moom mu yore jaasee ki fet ñu koy sot sotoo bi ñu koy kii ba mu yàgg dañ ko mbaal bi ñu ko mbaalee rek mu daanu rek ñu caw ko jaasi ji ci kanam gi borom xam-xam yi dañuy wax ni keroog bi muy faatu fekk nañ ci moom akthara min thalathina darbatan bi sayf bi ñu wàññee fii jaasee fi daal fii jaasee fi jaar fii jaasee fi jaar lu ëpp fanweeri caw cawi jaasi fekk nañ ko ci yaram bi mu doog a faatu moom amr di frère Khalid ibn Saïd ibn al-Aas mu faatu ci shahada dem ajana insha allah am na beneen frère am bi tamit nee nañ ci xeex boobu faatu donte nag loolu wax ji am na wuute ñoom ñaar ñëpp ñoom ñett ñëpp ñoo bokk fu ñu faatoo loolu wuute la ci borom xam-xam ala kulli xaal dañoo shahid waaye xeex boobu jullit ñi rey nañ ci yeefar yi lu tollook asharata alaaf asharata alaaf mooy ñaata nit dix mille personnes dix mille personnes fukki junni ci ay yeefar ci romain yi jullit ñi rey nañ leen keroog. kon xam nga ni keroog xeex boobu jullit ñee gañe ndax Xaalid moom xamul bañ a gañe moom moom loolu moo nekkoon maanaam deminam moo waroon a Omar doon ko folli ngir bañ nit ñi defee ni Xaalid moom Xaalid moom xamul dem guerre échoué moom yàlla alhamdulilah loolu lu ko yàlla mayoon la moom. ay dem guerre ñu naan gañe nañ leen loolu moom bokkul ci programme am moom moom kay dem guerre gañe dellu si waat préparé dem feneen waaye Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas mook Abaan. am na ñu wax ni faatuwuñ ci xare bi waaye bisub ajnaadin ajnaadin benn xare la woon boo xam ni wees na nettali woon nag ci dundu Xaalid mu ni ca lañ faatu Xaalid ibn Saïd ibn al-Aas nee nañ bi mu faatoo waa ji ko dóoroon jaasi ji fii yàlla moo ko defal tawfiq ba mu dem ba tuub ba mu dem ba tuub gis nga waa ji bi mu tuubee li mu njëkk a laaj mooy keroog jour tel am na ku ma rey ci yéen kooku kan la. gaa yi def enquête xam nga affaire bi mi ngi bëgg a am ay fan ñu defi enquête di defi enquête di xam nga waa ji dafa nekkoon ku njool nag njool la woon bu am yaram te rafet macha allah bi mu leen décrire waa ji rek benn waay mu ne ko kooku Xaalid ibn Saïd ibn Laas la mu ne gis ngeen kooku ginnaaw yàlla sama tuub ci moom la jaar ñu ne ko naka la mu ne gis nga dama ko rey ba mu tëdd ma seen benn lumière bu bàyyi koo ci moom ma di ko xool ba mu ni carax ci biir asamaan si lii kenn tiliw moom mu ne maa seen leer gi di jóge ci néew bi jóge ci néew bi di yéeg ma di ko xool ba mu ni carax biir asamaan ma sa gàtt xool ni mu ne foofu nag fi la sama xel mi taqalikook sama saba ma xam ni man reyu ma nitu ordinaire nee na leer googu googu mu gis ci bisub ajinaa diin nee na moom moo ko tax a tuub dugg ci lislaam kon moom faatu na am shahada tàbbi ajana insha allah kon mbokk yi lii nag li borom téere bi tënkee muy lu am solo moo taxit ma di ko tënkee mu ni ها وهكذا رحل بطلنا الحبيب عن دنيا الناس بعد أن أضحى بثروة أبيه وآثر الإسلام على هذا المتاع الزائل من أجل أن يظفر بصحبة الحبيب وبرضوان الله رب العالمين ثم بالجنة النعيم المقيم في جنة الرحمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نانا سونو جامبار جي تدنا mu ne sunu jàmbaar ji tëdd na faatu tey ginnaaw boo xam ne dafa sacrifier boppam nangoo bàyyi alalu baayam koom-koomu baayam pare pour torox ginnaaw boo xam ni jekku woon na àddina mu wan ko gannaaw ginnaaw boo xam ni sacrifice bi mu def yépp ànd ak yonent bi rek moo ko ko jaral ginnaaw sacrifice boo xam ni tàbbi àjjana rek moo ko ko jaral àjjana joo xam ni mooy àjjanay sunu borom ja lu bët dul mësta gis ma nga fa lu nopp mësta dégg ma nga fa lu xel mësta xalaat ma nga fa foofu laa ciy doole ni mbokk yi ñu xam ni li may faral di baamtu kulla yawmin li doon rëy fa yàlla ba tey mi ngi rëy li doon màgg fa yàlla ba tey mi ngi màgg ñun nag ñoo ñooy xewal di xewal ak xew yi waaye yàlla moom la xewoon xew na dootul xeweeti ba yomal qiyaam la xewi woon xewi na ba faw saa boo gisee góor yu mel nii fa tashabahu in lam takunu mithlahum jéema la niru niru lu gaa yi bu dee meloo ni ñoom ndax inna tashabuha bil falaaxi kiraam wala bil kiraami falaax niru niru lu gaa yu baax yi day jur nga texe ànd ak ñoom mbokk yi ñu xam ni loo jàpp ni nit mënu ko rek am na ñu mën a def sacrifice yu ko gën a rëy tey da ngay toog ay nit di la nettali yoo xamante ni da nga naan lii mënul nekk waxoon kay mi ngi nekk ila yawmina hada parce que yëf yi njëg la ku mu jaral doo waxaale noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yutahira qulubana min annifaq wa amalana min alriya wa alsinatana min alkadib wa ayunana min alkhiyana إنه يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين